ñu redressé si boobu. décembre daanaka jeex na de. jeex na waaw ñu ngi jëm si janvier toujours maa ngi leen di wax. Clédor Clédor. allo. ñu ngi lay dégg Clédor. voilà voilà je disais toujours que. Hmm. janvier. Hmm. kese moo dox suñu diggante ak février. élection yi et janvier nous nous sommes nous sommes déjà. Hmm. donc tey rek la ñuy clôturer au plus tard le 20 euh, le 20 janvier le conseil constitutionnel am pour afficher mhm. Clédor looy xaar ci dossier Bassirou Diomaye euh, day jàll parce que euh, Bassirou Diomaye mhm. ak Ousmane Sonko yëpp seen dossier dafa nar a jàll ah oui léegi ñaari ñaari dossier yooyu bu jàllee mhm. léegi l'avantage euh, mooy euh, Bassirou Diomaye mais mooy Sonko rek day mel ni parce que dafa am ñaari candidat donc mais looloo nar a poser problème aussi. non du poser problème c'est-à-dire hmm. su Bassirou Diomaye nekkoon ci biti su nekkoon ci biti. Hmm. day battre campagne bi képp ku ànd ak moom mais na woteel Ousmane Sonko day mel ni ku nekk ci deuxième tour. Hmm, ñaari campagne lay doon. ñaari camp ñaari campagne pour benn candidat. pour benn candidat léegi ñu dem ci réalité léegi ñoom génn guñ ñu ngi prison ñu ne par exemple suba la campagne bi commencé mais RTS day dem Cap Manuel <laughs> jël Bassirou Diomaye jël Ousmane Sonko. le mm. même discours la ñuy am Bassirou day yekkal Ousmane Sonko il va appeler à voter pour Ousmane Sonko il va dire que c'est le projet c'est le même le leader c'est Ousmane Sonko. moom c'était euh, euh, euh, une candidature de de de, sécurisation. Hmm. pour le projet. et et et loolu électeurs yëpp comprendre nañ ko. Hmm. kon ñoom seen temps d'antenne day yokk sax si Sonko waroon amee cinq minutes Pastef day am cinq minutes Sonko ak cinq minutes su Bassirou Diomaye. Hmm. xool ma loolu su fekkee ni ils ont une même communication. kooku stratégie politique la stratégie stratégie électorale la bu fi musuta am rawatina nag bu ñu nekkee en liberté et il faut pas exclure qu'il le soit que ñu nekk en liberté parce que encore une fois sénateur yi nga xam ni dañu euh, préoccupé ci ni Sénégal bi doxee bokk na ci seen préoccupation ñu libérer les détenus politique au premier chef mais est-ce que ñooñu mën nañu def euh, pression bu tax ñu libérer leen Euh, mën na def bu tax ñu libéré leen parce que coopération internationale bi yàgg na am influence euh, ci ni Sénégal bi doxee. Mm-hmm. même ci ay dossiers judiciaires surtout nag lépp loo xam ni dafa laaj démocratie ak droit de l'homme surtout élection un candidat boo xam ni xam nga bu fekkoon ni. Mm. candidat la boo xam ni dafa jalgati yoon ba mu fës ni dafa jalgati yoon ñëpp a koy xam. parce que yoon aussi daf fi taxaw pour ku jalgati yoon ñu teg la ci yoon. Mm-hmm. donc bu fekkoon ni loolu lu am benn chancellerie wala benn sénateur wala benn kuréel. Mm-hmm. buy jóg nan nañu bàyyi détenu politique yi parce que day fekk boobaa. Mm-hmm. dañoo def lu ñu weñ mais ñëpp gis nañu ni mais c'est un complot de deux mille vingt et un à maintenant boo xam ne dañ ko teg sax ci violence ak exaction yu méttee méttee méttee. xam nga yéen a ngi fàttaliku euh, bi Ousmane Sonko di ñibbi fekk mu ngi jóge ci convocation hmm. ñu naa ko fii ngay jaar ak fee ngay jaar ba jël ba jël euh, benn dara toj vitre otoom mënoon nañ ko gaañ muy ambassade yi dañuy seetaan loolu hmm. ba mu jógee ci loolu ñëw këram mu ne day dem siège parti def conférence de presse ñu ne ko doo génn sa kër ci lu teguwul ci yoon violation de liberté ci moment boo xam ne ma Mbaye Niang moom ba ngay conférence de presse hmm. l'autre partie muy conférence de presse kii ñu ni du conférence de presse hmm. ñoom bàyyi nañu siège Pastef ñun dañuy dem siège mali Gakou conférence de presse hmm. gendarmerie moo barricadé un lieu privé tere nit ñi euh, réunir foofu conférence de presse ay liberté loolu sensibiliser ñëpp a ngi koy seetaan ñëpp a ngi seetaan bi Macky Sall jëlee décret ñu dissoudre na Pastef xaaruñu sax kayit di génn xaaruñu application wu dara dañu dem ca saako xotti ay affiche Ousmane Sonko loolu violence la. mais mais mais cour de justice bu CEDEAO nee na aucun des droits de Sonko n'a été violé à ce propos. waaw ñooñu ay ndaw Alassane Ouattara lañu. Alassane Ouattara ak euh, xam ngeen CEDEAO c'est un club de président aussi euh, donc euh, c'est c'est la France Afrique mais li fës mooy nga jël décret de dissolution un décret frappé de recours parce que mën nañ ko attaquer devant la Cour suprême nga jëfe ci saa si loolu hmm. yow dañu jël décret bi rek nga dem xotti affiche yi nekk ci siège jàmbur dugg ci siège jàmbur jël ordinateur yi matériel table chaise bàyyi woo dara loolu violence la bu gën a grave sax bu ñu toj oto Ousmane Sonko ba noppi nag nga jël tous les leaders de Pastef tëj ci kaso bi jusqu'au maire léegi ñu ngi wër lee maires de Pastef yi gagné élection yi di leen tëj benn par benn benn par benn boo ah ba ku mel ni Khadija Mahécor sax mënul ñibbi si gàddaay parce que jàpp nañu Jamil Sané jàpp nañu keneen le maire de Bignona arrêté woon nañ ko fi bàyyi ko fi Bakary Diatta donc ñu ngi continuer di intimider les maires ñu ngi exercer violence ñëpp gis nañu également. Hmm. que on a tué beaucoup beaucoup beaucoup de manifestants de deux mille vingt et un à maintenant et des gens de Pastef Ziguinchor bi ñoon a Dakar ils ont tué tué tué hmm. donc loolu yëpp muy ay violence ñu exercer ci benn parti hmm. mais loolu ñëpp gis nañ ko bu fekkoon ne Ousmane Sonko ak ñi mu àndal. dañoo jalgati yoon kon lu ñu am benn soutien même international hmm. parce que ku jalgati yoon dañ la war a teg ci yoon mais kenn ku interroger wu rek j'espère qu'ils n'ont pas tué mon frère hmm. fekk Didier Badji kenn gisu ko Fulbert hmm. Sambou dee na ñu jël la tëj tëj la boole ci mais xoola Pape Ablaye Touré nga xam ni photoom ak circonstance su euh, torture am wër na àddina. mais hmm. yëpp gis nañ ko parce que seen i ambassade ngi li fi xew dañ koy xam. ñu yeew ko dóor ko takkal ko suuf damm loxo bi damm tànk te ay gendarme ñoo ko def. quand hmm. le lañ ko defee. quand le clerc ban bii quand lañ ko defee. ah oui quand seen boobu. Hmm. foofu la amee mbir mi amee seen quand le boobu la amee. te te du ay ay samba boy ay nerf yi ñoo ko jàpp. yóbbu ko gendarmerie la xew ci moom gendarmerie lañ ko ko defee te témoigné na ko damm loxo bi damm tànk bi lan lañ ci teg mais jàpp ko ci kaso bi tëj. mandat de dépôt. jàpp ko ci kaso bi tëj donc yooyu yëpp nag mu ay ñaawteef yoo xam ne nit ñi ñu gis ay violence ay méthodes yoo xam ne teg nañ ko Pastef ak leader am ci kaasam mais tous les cadres de Pastef sont en prison am na ñoo xam ne ils sont en exil. Hmm. comme Maître Demba Touré comme Adja am ñoo xam ne jël nañu gaal gi dem les gens sont exilés ñu bëri jaare nañu Nicaragua ñuy jaare feneen am ñu ci def am ñu ci mucc am ñu nekk fii mais euh, di jël ay précautions loolu moo dul dëgg di yoon parce que le peuple sénégalais a déjà choisi kon tey jii euh, lii dafa dafa jéggi dayo donc c'est normal mm. euh, bitim réew ñu am souci ak préoccupation quand même mm-hmm. ñu am une scène politique apaisée surtout que ñu ngi jëm ci ay élections mm-hmm. ñu delloo nit ñu seen àq ak seen yelleef parce que opposition sénégalaise mm-hmm. bu nekkul woon ci droit am du am benn soutien kenn du ni euh, nañu leen bàyyi wala nañu def ay élections yu jaar yoon parce que encore une fois yoon ku ko jalgati dañ ko war a teg ci yoon mais tey nit tuumaal ko loo xam ne. kenn mënu ci indil benn firnde. ay corruption de la jeunesse ay vol de portable ay ay ay kenn xamul. association de malfaiteurs ñoom ku ñu neex ñu ñu gàkkal sa der association de malfaiteurs. kan mooy malfaiteur ñoom Bassirou Diomaye ñoom Ousmane Sonko ñoom Fadilou Keïta mais c'est pas des malfaiteurs ñoom Jamil Sané ñoom ñoom c'est pas des malfaiteurs. Mm-hmm. c'est des hommes politiques engagés pour le pays ils ont un projet pour le ñoom nag ñoo yor seen bic rouge di bind qualification bu leen neex ci ku leen neex donc loolu je crois que d'ici euh, un mois et demi mm. les Sénégalais vont régler ce problème là parce que ñu ngi jëm ci ay changement ñu ngi jëm ci ay changement yu yu profond actuellement képp ku fekkee deux mille vingt et un ba deux mille vingt quatre ak Sénégal oui ñu ngi lay dégg. allo ñu ngi lay dégg. Clédor seen ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. Clédor. Clédor. Ah, waaw waaw waaw maa maa ngi lay dégg problème ak réseau bi la réseau bi la tey neexul noonu waaw hmm. Hmm. donc euh, foofu la foofu laa chuté. Hmm. je disais que képp koo xam ne. fekkee nga deux mille vingt et ba mille vingt bokk nga ci tarixu Sénégal boo xam ne lu ñuy lu ñuy retenir la parce que. Sénégal Clédor waaw déggante bi taxu ko neex noonu. tax ko neex de tax ko neex. vraiment waaw peut-être nga nga conclure waaw. Clédor am nañu tuuti jafe-jafe pour euh, jokkoo ak moom euh, mais wax ji leer na daanaka tënk na ko 2021 euh, ba 2024 li fi xew yëpp bokk na ci lu ñu bëri tuddee recul démocratique mais aussi salfaañ ak ak yelleef sañ-sañ yi di liberté yi loolu itam mu jàpp ne waa bitim réew teg nañu ci gët ndax ñaari sénateur yu Amérique def nañu résolution